d'accord euh, si environnement scolaire boobu euh, mun nañoo mun nañoo jàpp ne ba si ñu weesu sax foofu euh, foofule si lycée Blaise Diagne mun euh, benn professeur nga xam ne benn élève am da ko agressé yow ban lecture nga am si mbir moom bi ñu demee ba léegi élève di am fit di agressé professeur am mais loolu c'était c'était ñu loolu bettuñ bu nguur gi taxawee njàng jàngalekat parce que l'école est le de la citoyenneté mm. école c'est un sanctuaire foofu la ñu tabaxee citoyen bi bu ñu bëggee tey violence yi wàññeeku ci réew mi bu ñu bëggee sécurité il faut renforcer les pouvoirs de l'institution scolaire mais bu dee yow da nga taxaw nekk nguur mm-hmm. di xalab jàngalekat yi di leen tuutal mm-hmm. di leen yekk ni xeme jeter leen en pâture di leen dénigrer conséquences yi mooy tey ji lii mooy conséquence dénigrement jàngalekat yi li ngay wax comme doorul Blaise Diagne daaw agressé nañu mbuur suñu benn collègue. Mhm. bu nekkoon doyen Dieye nekkoon SNELAS FC mooy syndicat boo xam ne suñu camarade euh, sañaan moo ko jiite mooy le syndicat qui regroupe tous les enseignants en langue arabe. ñu dóor ko fi ba presque ay double fracture la am ñu demoon fa ba affaire bi dem ba tribunal déggoon nga lu xew Kolda aussi ñu agressé agressé fa jàngalekat Saint Benteñe ñu agressé fa jàngalekat euh, Valdiodio daaw ñu agressé fa jàngalekat mais yooyu ren ji agression ren ji agression monsieur Mandoy may ma agression récurrente yi nga xam ne sell comme ni nga ko limee mun nañu wax sa nombre d' yi léegi dem na ba ak euh, étendre si territoire sénégalais bi yëpp lu leen tere woon comme ni ngeen wàccee si euh, mbedd bi démb marché dénoncé euh, parce que mun nañoo sénégalais yu bëri ñoom genre yi cas yi xamuñ ko. très bien mais beneen bu mujj. balaa ma yegg si Blaise Diagne bi. Mhm. avant dernière agression. mooy collègue bu nekkoon fële Boucod Diembéring Saint Boucod Diembéring. waaw léegi bu taw wàcc léegi nag marche non bu ñu ko defee foofu. au ah. niveau de la département. au niveau départemental. Mhm. le G7 dafa observer presque trois jours de grève. Mhm. ba ñu arrêté waa ji fu mu ne nii on l'a déféré. on l'a arrêté ñun nous sommes des pédagogues. parce que lu ñu bëggoon mooy sanction exemplaire on l'a arrêté. parce que dañ loolu mënatuñ ko lu am Blaise Diagne tey tamit bu mu amee sunu naataangoo sunu camarade sunu sunu sœur sunu militante di liggéey liggéeyam ne parce que moom mu ngi jàngalee CM Thierno Birahim Mbacké mais comme CM Thierno Birahim Mbacké amuñu terrain fu ñu mën a def éducation physique ak CM yu wër Blaise Diagne ñooñu ñëpp Blaise Diagne la ñuy ñëw mais bi mu ñëwee tey élève bi. cinquième la nekk CM Blaise Diagne agressé ko yàq kanam gi lépp lépp lépp bi mu ko defee jàngalekat yi dañu arrêté dakkal jàng bi ci Blaise Diagne ci lycée bi ci CM bi ak CM Thierno Birahim Mbacké ba pare nag danañu déposer plainte parce que lii tey jii dañu ne c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase man mii wax naa ci àddunaa ci nee naa ministre ma Mamadou Talla na jël ay responsabilités en tout cas ñun du ñu nangooti suñuy militante suñuy militant jàngalekat yi ak fu ñu nekk ci Sénégal ñu leen di agressé te c'est le devoir de l'autorité autorité administrative autorité académique parce que loolu loo 61 33 moo ko wax mu assurer la protection des agents dans l'exercice de leur de leur service kon nag tey jii lu am Blaise Diagne mooy lu ñuy wax la goutte de trop maintenant nag ñun waxtaan nañu suñu biir lu ñu wax leer na mbir mi danañ ko yóbbu ci yoon te ñu ngi concerté wu dina am yeneen mesures yu ñuy jël parce que lii du amati bu dee bëgg nañu jàmm ci rib ci njàng mi dal ci njàng mi loolu foog ñu régler ko maintenant loolu dafa am beneen jàngat mooy sa pose la question de la sécurité des établissements mm. tey école yëpp ay cantine la ñuy wax lu ñuy wax la cantinisation des écoles écoles yëpp cantine yee ko wër boo demoon tey am na école yoo xam ne fukki buntu lay am ku mu neex dugg ku mu neex génn amul benn sécurité tey jii Blaise Diagne wax nañu il faut ñu renforcer la sécurité dans l'espace scolaire ñu assurer la sécurité des enseignants des élèves du personnel administratif du personnel de surveillance et du personnel de contrôle mais ñu ngi waxtaan suñu biir luy ñëw nag rawatul bët en tout état de cause tey marqué nañu la coup Blaise Diagne CM Thierno Birahim Mbacké CM Blaise Diagne jàngul te dinañ ko analyser fu mu ne nii au niveau ñu ngi concerté wu mais lépp loo xam ne dinañ ko jël matuwaay pour que lii dakk te leneen li mooy dina jëm la voie pénale mooy plainte bi dinañ ko déposer te dinañ ngu euh, yoon dana def yoonam dana def liggéeyam parce que du ñu nangu élève euh, violence ñu ñëw di ko dugal ci école parce que la violence n'a pas sa place dans l'espace scolaire d'accord euh, ñu euh, avancer ba tey seen grève bi ak seen détérioration rela relation yu dox diggante G7 ak état bu Sénégal parce que mun naa wax ne fu mu toll ni seen relation détériorisée na parce que beneen mbir mi mooy président foog muy déglu le citoyen bu ma nee citoyen mooy dafa war a déglu jaaykatu gerte gi. Mhm. dafa war a ji déglu jaaykatu orange. dafa war a déglu journaliste bi dafa war a déglu sportif bi dafa war a déglu jàngalekat bi dafa war a déglu ouvrier bi dafa war a déglu mécanicien mais moytu di déglu politiciens yi ak les gens yoo xam ne partisans ñoo xam ne seen intérêt bopp rek fee réew président réew mee ko fal euh, parti faru ko. coalition falu ko c'est le peuple sénégalais qui l'a porté à la magistrature suprême kon peuple boobu tey bu ñu nekkee ci jafe-jafe moom waree fam mooy mu taxaw fexe ba saafara loolu mais nag di jël jàngalekat yi di leen euh, xalab di leen dénigrer boo gisee tey ñii mu am ay élèves yu sañ attaqué jàngalekat yi di leen di leen agressé parce que ñoom nguur gi ñoo ko commencé ñoo dénigrer jàngalekat yi loolu bés bu ñu ko arrêté lu bari dinañ am mais ñoom bu ñu ko nee di ñu dénigrer kenn mënut a dénigrer jàngalekat parce que métier um jàngalekat jàngale c'est un métier noble c'est un métier noble te c'est les soldats du savoir te réew mi fu mu yegg tey xam-xama ko tax njàngalekat yi ñoo tax. d'accord euh, njàngale ne nekk na loo xam ne lu am solo sax naam état bu Sénégal jël na 23 pour cent du euh, de son budget national euh, jagleel ko lii di jàngale moo nekk loo xam ne mun nañoo jàpp ne jéego yu am solo la mais yéen en tant que syndicat yu yëngu si xeexum jàngalekat yi est-ce que jàpp leen aussi seen revendication yi dafa diis ci ndoddum gafaga état bu Sénégal. diisul parce que nguur teg ko fan lu ñuy wax les dépense de prestige jaru ko tey jii Sénégal terre bu ñuy tabaxal nii ñaata milliards la bu ñu jëlee juróom benn fukki milliards jëndee ko ay oto ñaata oto la loolu ban jariñ la amal réew mi mën nañ jënd oto mais trois cent milliards bu président demee ba di ko naqarlu nga jël presque ñaar fukki milliards ci woote rek téléphone am na ku ma ne xanaa ñoom liggéeyatuñu woote rek la nekkee kon loolu diisul si ñoom ñoom lu nu bëgg a def nu ngi koy def tey jii député yi mais assemblée ngi noonu boo demee tey yenn institution yi seeni fonds communs yi seeni fonds politiques yi mais kenn xamul ñaata la moo tax ñun dañu ne système de rémunération alignement rek moo mën a régler loolu kon loolu diisul question volonté politique la parce que ñoom lu ñu bëgg def ñu ngi koy def terre bi bu ñu ko bëggee def def nañ ko. non la ñuy waxtaanee li xew ci université Sénégal yi euh, mun nañoo jàpp ne yéen ci moyen secondaire bi ci ngeen nekk mais euh, sa nemmeeku neen fan yi ñu wees ci université yu Sénégal yëpp yëngu neen gis neen ne sax léegi étudiants yi dañu ngi jàmbaarloo ak takk der yi université euh, Gaston Berger bu saint xam ne ñëpp dañ ko ràññee woon stabilité ak jàng mais gis nañ fu toll ni université boobu tam yëngatu na bu baax a baax te kii di euh, euh, ministre bu yool wàllum jàngale bi monsieur Anne dafa amoon ay diggé yu mu fa indi woon waxoon sax na gannaaw ba mu amee rupture ak euh, yenn école privée yi si wàllum tamit koppor rek fayutoon élèves yi loon fa jàngale dañoo décidé woon dakkal boobu la collaboration mu demoon si yenn ay université yu Sénégal dugal la yooyu waaye ñoom université yooyu dañoo jàpp ne euh, élèves yooyu xajuñ fa yow ban jàngat nga am am si boobu lee mbir nga xam ne fu mu toll nii tout le système éducatif euh, sénégalais mun nañu wax ne moo nekk di tomber à l'eau. sa question bi daf ma inspiré benn réflexion dama am benn mm-hmm. pas may waxtaan ak moom. Mm-hmm. mu ne ma man li ma jaaxal mooy dañu ne suñu résultat bac yi baaxul. Mm-hmm. depuis dix ans ñu ngi entre trente trente cinq pour cent. mais mi ne ma li doy waar mooy 35 pour cent yi amuñu fu ñu leen dugal. kon tey bu ñu eggoon 60 pour cent fan lañ jëm. <laughs> fan lañu jëm. loolu question la ñaareel bi mooy. Mhm. mais il faut avoir la la la nu muy wax encore la carte universitaire sénégal des na. Mhm. il faut construire de nouvelle universités. Mhm. mais tey université Cheikh Anta Diop dañ ko surchargé. il y a une surpopulation. plus de cent mille étudiants. boo demee ci chambre yi. et yi dañ fay nekk à trois par chambre. six promiscuité day am problème d'hygiène day am. problème de santé day am. kon tey y a une surpopulation des des universités. université yi mënatul contenir bu ñu demee ba ñuy tabax ay abri parce que université am na ay abri provisoire chapiteaux yi c'est des abris provisoires en période de chaleur kenn du fa mën a jàng. day fees dell kon nag loolu c'est un c'est un tout xam nga système éducatif c'est un tout parce que ñu ñuy jàngal. ñuy jóge élémentaire ñooy dem moyen secondaire ñuy jógee moyen secondaire ñooy ñëw université c' est un système de vase communicant mm. mais école sénégalaise ci boppam moo am ay jafe-jafe mm. te jafe-jafe yooyu lu ñu jaaxal mooy waxtaan nañ def nañ des assises euh, de l' enseignement supérieur def les assises nationales de l' de la formation mm. ana conclusion yooyu ana volonté politique mais c' ça le problème donc université tey jii jafe-jafe yu am bettul kenn parce que étudiants yi ñu fay yóbbu man waxtaan naa koo xam ne mu ngi foofu enseignement supérieur mais nee na ma ba tey am na ñoo xam ne orienté wu ñu leen. Mm. kon naka jàpp ne Sénégal euh, état bu Sénégal yàq dépenses yi prestigieuses mais y a des dépenses mais Sénégal tey nit ñi quand mun nañ am yaakaar bu nu demee ba nu ne Sénégal am na pétrole am na gaz am na zircon te pétrole ak gaz bu mu am pétrole de qualité la gaz de qualité mais kooku ku ko am ci réew am na réew yoo xam ne bi mu amee. dañuy jël un pour cent ci loolu jagleel ko njàng mi ak santé bi